barhaamu baun waraun alif barhaamu baun waraun alifun thumma haa mimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan
xam nga cëpp kuusi cëpp kuusi ñu naan bàyyi na ko du dem am nañ xasida waxee ne boo ko jàngee bàyyi nga naan yonent bi xadimuka maxdumul muluki wala faxra maa ngi lay julli ci yow di jotlu ko ci yow di sa bëkk néeg waaye sa bëkk néeg bii de ay buur dinañ ko liggéeyal te loolu sax du ko tiitaroo su boobaa te dañoo bëgg lu baax rek ñëw ci moom amir kanu nag sultaanu kanu misaal la ca mu ne mu fàttali ne mi ngi ànd ak ku toll ni bàyyi laaj mbaab du ñàng ak ki nga xam ne doomu baayam la ci bëgg yàlla muy alaaji Laamin soxla doomu Abu Bakar ñaana leen yàlla mu fay leen yiw fay buur kanu waxoon naa leen laaya jëm ca teg nag day junju loolu shuhudu minute ba subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin yàlla mi tàggal lii moom rek ko mën mu ne wax xarajna achiyata yowm alxamisi alxamisa achara noonu la ñuy jàngee baat bi ci arab min alchahri ila tanim lil ihrami bi umrati tanim barab la boo xam ne soo fa yeggee génn nga xurum ji mën nga fa armalee duggaat xurum ji lil ihrami bi umrati gën a jege xam nga kañ la xew barab la boo xam ne mooy sayyidatuna Aïcha ci xajatul wadaa bi yonent bi ñëwee ba mu demee ba aj aj ba ci kanam dafa gis baax baaxu doomu adama la mënta tawaaf ba nit ñi bugg a ñibbi mu ne yonent bi ñëpp a ngi ñibbi ak xaj ak umra man mënaayoo ñibbi ak aj rek ndax yonent aj la jiitu loolu yonent yebal ko ne ko loolu yàlla ko bindal doomu aadama yi aada la ba mu ko dalee la ko ko wax mu ne ko loolu aada la defal ni ngay def te nangam nangam nangam lu mooy wër kaaba gi rek ba mu ko waxee loolu nag ñi ngi waaj a ñibbi mu boole koog Muhammad ibnu Abi Bakr Siddiq càmmiñam ne ko yóbbu ko ba Tanim mu armal ngeen ñëw tawaaf saayu ñu ànd ñibbi moom itam mu am aja war a ni ñëpp Tanim nekkutoon miiqaal ihraam ci ajig bàyyi googa nag mu ne bañ nekkee minan xam nga am nañ lu mu benn ñaar ñetti occasion dajeeg buur bi mu ne daje boobu ko yàlla mayoon ak ràññeeku moom bàyyi te mu wax ñu ci dara ne maanaam biñ demee buur bi recevoir leen bëriwuñ probablement bëriwuñ boobu dañ daan wër sax ci dalukaay yi di seet kuñ tekkaal yi bàyyi noonu lañ ko xàmmee indi ko mu ne bi ñuy waxtaan ki jóge woon misra jamono jooja moo doon xatib ca mixraabu zeynab yi fañ suul sayyidatuna zeynab ca qaahira mu ne gis nga niñ fasaaye mu wax a wax a wax a wax a wax keneen dal di koy feelu ñu tëgg buur bi nag ndax Abdul Aziz booba dafa am nguur booba la ubbi xijaaz ak yépp nekk kéemtaan bees bàyyi ñoom faysal ak kenn ki ne ko noonu la xoolal buur kay moom kéemtaan la xoolal maam jógee ci pegg at na kii jógee ci Afrique nangam nangam nangam ñuy wax bàyyi nag mu ne biñ ma joxee parole man ma ne waaw ñi wax ñëpp de tagg nañ buur bi waaye man day ki may njëkk a tagg mooy Allah mi nga xam ne mi nga xam ne mu ne xam nga nag seen faiblesse ci tawhid la bàyyi di melal yàlla rek mu ne ku ma cay teg mooy yonent bi nga xam ne même kaaba bi ngeen di wax fooraayam bi muy laata ñëw yàlla ebal ko néegu ay xërëm la woon rek ak ay tooñkat moo ko laabal lu ma ku ma cay teg mooy saabaam yi nga xam ne ñoo def nii ñoo mel nii ñoo mel nii door cee teg buur bi nag cet milieu mu ne ki waxoon jógee misra ne buur bi man de foog ma ñaan la waxaat foog ma wax ci yonent ndax aalimu Sénégal dana ma tax wax ci yonent bàyyi na wax xam nga nag loolu lañ mokkal muy wax nag ci yonent bii daal daal waaye daal fekk na yëf yi jiitu na rek bon booba nag jotaay booba booba Abdoul Aziz ne xam nga Tanayim du miiqa xam nga du miiqa buur la bu miiqa ndax Aïchatu moo tawatoon lii lii yonentu boole ko Mouhamad càmmiñam mu dem ba kii ne ko bu ngeen demee tani mu miiq ñëw maanaam te xam nga Aïcha makaana bi mu am nee na ci jotaay bi Ali Kutub mi bàyyi tuddoon ne taalibeem la boobu mooy mufti Shafii yi ci Saoudia mu ne ko ah yaa tawel omri da ngay fatwa ci diine ci loolu xam-xam xam nga boobu taxawaay loolu nag àddina li ci biiram xanaa xamoo ne keroog la Tanim nekk miiqa ba tey miiqa yi ci des ku ñu ko xamal ku may kooku eble fa mu ne buur bi jóg jaas ji mu amee mu ne bëri jóg ñi dañu tiit sax ñëw daal di ko koy gàllal ne ko gis nga man jànguma taluma ko woon sama bàyyi daf ne ko jànguma waaye li ma la wax maa ngi ko déggee ci gaa ñii joxoñ ay ulama yu fa nekk màggal ko waaw seetal ma taalube baay ak baay ñoo am ndam ci jotaay booba te mel ni kenn xamatu li xew parce que téere bi du jàng nii rek dafa am yu nekk ci biir boo koy jàng ba suba doo ko xam alors nag ndeysaan tanim mu ne ñu dem tanim boobu ngir ixraamee fa ngir umra wa wasalna qubayla gurubi shamsi ba ñuy egg tanim nag am na njàkk su fa nekkoon booba booba jant baa ngi waaj sa qubayla moo gën a tuuti qabla
li yàq ngir mu dagg farafan ab kuré wa jalasna fi masjidi sayyidatina Aïcha jàkk ja jàkk yi sayyidatina Aïcha la woon ndax moom lañ fa ebaloon avant loolu dara amu fa li lintidaar il maghribi di xaar jant di saar di xaar waxtu timis jot wala ma wajabat ba farata ja waree wajabatul maghrib maridatul maghrib li ci jublu wasal fi daaxilil julee ci jàkka ja fekk ñu ngi ci biir xaram ba maanaam ñu ngi ci biir li ñuy wax xurum nekkuñ ci xillu wa xaraj naa lil xilli gannaaw ga nag biñ julee ñu génn dem ca faduul xurum wasalay naa rakaatay sunnatal ihram farata ñu ngi ko jullee ci biir xurum génn ci xellu bi julli ñaari rakka xarmal daf lay woon ajam nga nam correcté wa ahram naa wa labbay naa wa ji naa wa tuuf naa bil bayti daal di xarmal xarmal mooy yéene aj bokkut ak malaan mi nga làmboo de loolu mooy yërey xarmal mais xarmal moom yéene la yéene ñu daal di def labbayka teg ko ca ñëw ci makka wa tuuf naa bil bayti wa saay naa bayna safa wal marwa loolu mooy umra kat xarmal tawaaf juróom-ñaari yoon daw safa ak marwa umra jeex na daacina qaa'iliina maa kaana yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ña ngay ñaan yàlla ba ñuy dem ak ñëw ña ngay wax itam la yonent daan wax maanaam ñi ngi roy wa xalaqnaa inda alxalaaqiina fi ne mi ngi gaawal li asjatu daan wax suy firi bu jant bi waaji soo ba mu gaawal ñu ne ma ngay rëppatal fi ne nii bàyyi dafay rëppatal ci mbind mi mun ñëw nañ def nañ def nañ def nañ sans détail parce que détail yi xam nañ ko ñu wax la yonent daan wax wa xalaqna inda alxalaqiina fale mu ne alxajjaamiina benn luxu la alladina inda al ngay dem safa yéene xam nga kon yaa ngi safa aw yoon dox ba marwa nga ne benn dépare marwa ñëwaat safa muy ñaari choc xam nga laal nga marwa benn yoon mais yaa ngi laal kii ñaari yoon boo delloo muy ñett boo ñëwee muy ñeent boo delloo muy juróom boo ñëwee muy juróom benn boo delloo juróom-ñaareel bi maroo la lay fekk moo tax foofa ngay watoo wala nga duufu boo bu fekkee nag kiiwuloo yàlla bëgg na la sonal ba ba kii da ngay def na ma defoon ci sama aj gi man kenn jiituwuma ma dem safa marwa safa ne benn dem man safa marwa dellu safa ne benn dem marwa ñëwaat ne ñaar juróom ñaari sawtu yi fukk ak ñeent laa ko daw boo tax dama xaw naa tus kër boo tax théorie ak pratique bokkul wa rajana farihina xaysu tammatil masa manasiku jamian ñu dellu nag ca dal ba kontaan lool ndax manasik yëpp pare na def nañ aj def nañ umra bi fadlillahi wa minnati yàlla ñu ko may ci ngëneelam ak xéewal gi mu ñu xéewal walhamdulillahi alladi arana manasikana ndax yonent Yàlla Ibrahima ci ñaanam ya bokkoon na ci wa arina manasikana won ñu nusk yi ñu war a def yëpp xam nañ ko def nañ ko nag yonent defee woon walhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allahu ñaan googa nit ñi naawi ñaan buñ demee ba taxee nag ci alaxira mu ne ma wax ko sant yàlla mi nga xam ne moo ñu jubal ñu mën a def lii bu ñu ko wanutoon duñ ko mën a def wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha beneen aaya alquran la xéewali yàlla yi boo ko doon lim mënoo ko jeexal mukk waxa zafirtu léegi waxi aj jeex na waxi umra jeex na mais bàyyi ak xam-xam itam beneen affaire la mu ne bis boobu nag mu pare aj ak mu pare umra téere yam fa am maa yam fa jënd moom loolu sax fàttewuloo koo wax bisu ajjuma la 16 ca weeru ajjuma mu ne am naa fa kutub bi iddati kutubin kulluha min makka téere yi mu jëndee makka sax dafa la koy wax téere yooyu fekk nañ ko ci kàggu gi ba léegi buñ fa demee mun naa la caawoon mooy kaamil boo xam ne dafa doon fukki xaaj ak ñaar boobu tumbaranke la mais léegi bëri na yow sax da nga jënd si kaamil ñu tasal la ko kaamil boo xam ne fukki xaaj ak ñaar mu ne maa ko fa jënd ak Fathul Baari bi Shara Buxaari ak muqaddimatu Ibn Hajar bu jafee la woon booba jënd na Kirmaani Shara Buxaari la moom itam jënd na fa Tanwiirul Xawaalik biñ Shara Motaw Malik bés booba. yéen am na fa diwaanu Omar kii Amru la bind mais Omar Ibn Abi Rabia su ma juumul ab aristocrate Qurayshi la boo xam ne ba mu jotul ca nguur gaag yooyu. dafa nekk rek ci woy woy na lu ne nag woy na mel na ay jigéen wax na yu jaaduwul woy na yu rafet itam dégg nga voilà mais kuy jàng wax yaaram da ngay jàng way way yëpp am na fa tey mu ne kamalul balaaxa rasailu naadira yooyu fekk nañ ko ci kàggu gi usulul maamul ci usul la ak benn xaaj rek ci tafsirul faxri razi ndax booba booba rek lañ ci moodoon tey sama kàggu ko sax ma ngi cee waxoon sama kàggum nga ak jasuus ba mu bind ci chamail sara chamail muhammad yi jasuus maghribi la téere yu jafe la woon booba xawaidu abil faraj fuxuul ci usul la yaakaar naa ne shawkaani moo ko def gaayatu nihaaya ci tabaqaatul qurra ñi fànnoo jàng alquran bidaaya wa nihaaya mu ne ci taarix waaye yàlla may la ma njaam su xeebu si ndeke liñ naan bidaaya wa nihaaya yépp ak xaaj yi ndeke bidaaya rek la nihaaya benn xaaj la mooluñ ko woon ndeke at mi ñu ko moolee dañ kaa def shouting fekk ma nekk charq ma jënd ci jëndal ci baay ñun di ko bàyyi bi daawe nihaaya nihaaya ngi door a génn ñaari xaaj la def naa ci ci ci ci mbiram mujj àddina ak axalu kii ci lu nekk ak xaadisu mahdi yëpp ci la nekk lu sax ma ñëw ko xam nga bàyyi nag lu bees booba je crois que ma ngi ko doon liir loo Lamine ak ak Xasan ba mu ñëwee ba mu ko laata denc lii na la ci nekk yëpp bidaay wa nihaaya bidaay rek la woon xaaj yu bëri nihaaya ñaari xaaj la yàlla may na ma maa ko jëndal baay baay bi ma jox lépp loolu maa ko ko jox wal istixraaj fi ahkaamil xaraaj boobu kii la majmuatu rasail xams lu am solo la nag ndaxte musul nekk buñ mool luñ bind ak loxo la woon bi may raddu waa Koweït ba am na ci masal yoo xam ne ci rasail yooyu laa ko jëlee woon mu saf sàpp nag tayidul xawli bi najaati booy rasul pourtant du problème waaye am na ñu ko def problème bañ taalif yi ne yónnent yaay ma bàyyam dañuy mucc ay wallaay dañuy mucc waaw mais gars yi laaj nañ ko boon ko salaasatu ajzaat ci xilyatu abi nuaymin xilyatul awliyaa yi bu abu nuaymin xaaj yu bëri la waaye booba ñetti xaaj rek ci génn léegi ba mu génne mun na fukki xaaj naar yi gisoon naa ko kuy wax maanaam diw su ko abu nuaym mi fekkoon ci moom dana ko boole ci rijaalu xilyateem yi maanaam wëli yu rek la bëgg wax te bañ a jaar ci digg ba ndax ay awliyaaw ci yonent la ci day ba ci jamonoom riyaadul janna am naa ko fa jawaahirul alfaas as téere la ci luxal arabiya dafa foor ba dégg naa buur bi tolloo nag waa ji ko taalif daf ko ko taalif la ba pare muy oo ko dagg loxo ne ko bala nga ko taalifal keneen ictisaam bu Shaatibi ci mbiram sunna ak bidaa lay wax référence la ci xawaayidul ahkaam bu ibnu abdusalaam izz téere yëpp mu ne am na ko fa kawe ci màkka ak diwaanu ashaari sahaba sahaba yi liñ leen dajaleel ci seen woy yi ñu xam keroog am na ko man la des ci téere ya Medina la ko jënde xool wa fi yawmi sabti xarajna li ziyaarati al maathiri wal athar samedi ja nag ñu ànd ak ñi xam di ziare barab yi nga xam ne yu ñuy ziare fii lii mi fi xewoon lii fi xewoon lii fi xewoon maasir mooy maasur li ñetti ne fii la woon asar mooy jiixit yi fa des ñu ne lii la woon awaluha wa awlaaha ba ca jëkk ci luñ ziare ci jiixit yi te gën a yàlla ziare mooy daarul arqam allati badaa fiha al islaamu xariba fi nga xam ne fa lañ daan làqu ji yonent di wax ak julli ñu bees yi buñ buggee julli rocceeku ku seen ku la seenut nga julli gaaw ñëwaat arqam ibnu abil arqam fu mu ne moom laa njëkk a ziare bés bi si naawmar tuubee lañ génn nëbb julli yonent xam ne ndigal ñëw moom laay wax dox bu gaaw bi omar dox léegi nga jóg pour rey yonent bi léegi nga jub ci yoon yi léegi nga tuub ba ngi daan am ay kii rek nga joxe benn benn xalaat yonent ànd ci ak julli ñëpp mu soppi taarix muy sayru bu gaaw wa minha daarul arxam mu ne fa la lislaam tàmbali woon tumuranke wooyu alxaysuraana lañ koy tuddee foofa léegi alxaysuraana wa minha ila jabal xubay jabal abi xubays dem nañ fa parce que foofa itam taarix la yàgg ngeen ko dégg ci gàmm wa minu ila mashaqil qamar fa yonent taxawoon ñaan weer xa weer wi xotteeku dal ko ci mucjisa ndax weer wi xajul ci suuf si mais yàlla ko defee noonu waaw wa minu ila mawlidi sayidina ali ibn abi talib sëñ Ali fa mu juddoo woon xam nañ ko dem naa seeti ko karam la wajoo wa miru ila mawlidi sayyidil mursalin ñu jógee fa nag seeti fa yonent juddoo woon moom muy sangu jullit ñëpp ñi yónni ñëpp wa miru ila mawlidi sayyidatina fatima foofu itam ñu dox tuuti egg ci fa fatima tu juddoo waaw léegi foofu dañ ko soppi woon tudde ko maktab ab bibliothèque nit ñi di fa ñëw rek mu jigi ñu tëj foofu waaye nag ba débat bu mag la fi mu ne am na téere boo xam ne ki ko bind ni mu bëree xaalis la bëree xam-xam ci màkk tey Omar ibn Abdoulaye Kaani waaw lañ doon wax yëpp ci journaux yi boobu ne dañu war a dekkal asaar yi article yi génnoon yëpp ak yañ tere woon yëpp dajale na ko def ko ab téere waaw te itam ni ñu koy jaayee sax xam naa dañ bañ ñu saboté ko moo tax ku ko bëgg jënd ci Europe contacté nii la ñu wax waaw par prudence mu ne dem nañu tam maxalu ummina xadija fa sey saydatuna xadija moomoon umiru ilal mualla mualla mooy bàmmeelu waa makka mualla lañ ko tuddee mualla mooy luñ ko weer mualla d'ailleurs su faatu suma doom jabaru lamin ba mu faatoo foofa lañ ko suul sarewul sax xadija wa zurna qubura sahabati mu ne ñu nemmeeku itam bàmmeeli sahaba yi wa arafna minha saaba yi fa suul bëri nañ mu ne xàmme nañ ca xabru abdullah ibni zubayr ndeysaan ak bàmmeelu asma bintu abi bakar siddiq ka nekkoon ca préparation gàddaay ga bañ buggee takk ñaari mbuus ya moo moo xotti ca muraayam ga takk fii takk fii moo tax ñu wax zaatu nitaaqay ni gis nañ fa bàmmeelu abdourahman mbokkam ak bàmmeelu xadija ci boppam ak amina بيتين فصول ببري ومن هناك زرنا سيد الغالي أبا طالب ورحنا لصلاة الظهر قال أبو طالب وأمر أبو فانك ندم أن المهم جل جيت الصباح وبعد انقضاء الصلاة استدعانا المريد الصادق سيد علي الكتبي برم اعتراف بما لنا خلي كنون بور بدنجاي وقت لودو خم خم من بين فوجي سما طالبي بو دغو بي علي الكتبي انفيتي نيو شريف بوور أسكن له واجتمع هنالك أعيان تجاريين من الحجاج من السودان مصر والشناقطة والتكارير والعرب invitation ba nag prétexte la woon parce que kilifa tijaan yi xam ne acc si nañ ak ñu jógee Misra Soudan Misra ñu jógee ci Mauritanie ñi nekkoon ay Mauritaniens daal même buñ fa dëkkee ak ay tukkuroor ak i arab daje nañ fa yëpp di ay tijaan suma taalibe bi invité leen invité ma ngir invité leen ngir man wa akramana wa anshadana baadul ahbaabi shay'an min shi'ri muhibbina mu teral ñu am na sax ñenn ci soppe yi maanaam ahbaab foofu mooy ñu dud wahaabi yi itam ab jullit buy yéem a ut dëgg la rek waaye en tout cas ñun bon voilà amuñ problème mu ne am na lenn ci mbokki muhibbina yi sadd na fa ay woy samaaw cherul muhibbina foofu mooy samaaw dégg jàpp leen ko wa tadakkarna ahla koosi wa madina mu ne ba waaj a jooroo samaaw ba mu ne ñu fàttaliku waa madina ak waa koosi wallahi loolu ba dal bàyyi dal na ma wallahi dal benn jëmmi jamono bàyyi aj si wut atam ma xamanteeg ay nit waa ji ne ma dafa am daje buy am ca montagne ba ci kër Cheikh Fadar te ñu dem ca ñu ay étudiants yu waa ji génn ak ay ñu dem ndekete foofa géewab tagg yonentu samaaw ku neexee baat ni Cheikh Zeyn mosuma ko gis mu sadd fa tuftu fi lxayi laabisan sawba ilmin fantafa al ilmu inda xalci ni ali baat baa nga neex ña ma foog ne ni bàyyi wax ña nga nekk Medina waaw waa jaa ngay liit naan wër naa ci gàdd gi fekk maa ngi soloon bu boobu xam-xam ba ma demee bañ sumbi dàll ya xam-xam ba réer ma ne ko may ma mu ne ma ne ko ma ne ko laa artaji amalan kalla wala adaban faqad tajarratu tajarratu an ilmi wa an adabi mu ne ko wax loolu ma ne ko sama kooku Cheikh Bawi waaw xabaay dem na ba ne ba ne léegi yaakaaratuma yar yaakaaratuma xam-xam subbi naa xam-xam ak yar yëpp ci ci xur woo da tolloon boo waaj ka ko wax ma dëkk xadara mawta faatu na ah ñu jox ma parole ca fin ba góor ga am na juróom-ñetti fukki at ak nangam Chérif xaqat ci waa xadara mawta yëg ma lu may rek mu ne ma yaa Cheikh Ibrahima zakirna billah la hawla wala quwwata loolu kenn musu ko dégg Cheikh Ibrahima fàttali ñu yàlla ba may las jël parole lam gàtt gàtt mi ngi mel ni dox naa sama xaatir dox na junne at man fan lañ jógee ak foofu ku ñu fay ne fat ma jël kon muy wax ma may wax ma bàyyi di wax man xool ba góor gën a jareet yuuxu góor gu màgg kenn lañ amee nag ay relation waaw ñii doon jàng ca kutu bi jarbaat usatu kutu bi bii mu jigi suñ jotaay ci màkka moom itam moo fay jàng ay samaaw dara demut mu ne tadakkar naañ fàttaliku nañ nag ba waaja jooroo ahla koosi wa madina fa jaza allahu aliyan alkutubi ahsana aljazaai wa ayadahu bi nasrihi yal na yàlla fay ali kutubi moomu te yal na ko dëgëral dimbale ko wa rafa an ahlihi kulla balaain mu junj dara mu ne te itam mbokkam yi yàlla teggi nattu yi ñu leen rek xam nga ku mel noonu foofa booba xam nga ne foog am na ay jafe-jafe ay nag tabaarkalla photo yi ngay gis nii am na ci yooyu kaaba gi nekk ak immeuble yooyu ñuy wane am na ci boo xam ne mën naa la joxoñ ne fii kër kut bii la maanaam tabaarkalla yàlla teggi na yëpp wa jaddatu lahumu tariqata ñooñu fa daje nag jógee Soudan Misra jógee Chanaxita jógee ci arab yi jógee ñooñu ñëpp ma beesal la leen seen tariqa xam nga xujaaj bi tuuraankeetul de mu ne wa kabiruhum saydi Mouhamed xafidu saydi Mouhamed al Muxtaar Tijaani min baldati Matamma fi Soudan Misra ña fa daje woon ñu nag ciy mag mag bàyyi mag xam nga du magi at ak yooyu mooy sëtu Mouhamed Muxtaar Tijaan bu mag boobu dëkk Soudan. wa qad jaddada alayya tariqata te moom moomu di seen mag nag moom itam ñëw na ma installal ko tariqa bi wa saatuhu bi baadi ma talaba minni min asraari tariqa te itam dimbale naa ko ci lenn lam sàkku ci man ci mbóoti tariqa bi maanaam sàkku na ci moom lu mu ko joxul parce que itam médecin du jox garab gu sa xel daj rek nga ne ko garab saa nga mën a jël déedéet lay jox yi baax ci yow wa huwa rajulun déglu bàyyi de la ashukku fi bàyyi ne kooku sëtu Mouhamadou Muxtaar moom tijaan boobu bees lu ci man ma ma bees lal ko déglu bu baax sikk waayal yoo xam ne sikku ma ne egg na ci yàlla kon kay xanaa fayda moo am fu mu dëkk waaye nit ñi egg egg loolu mën ta ñàkk wa kadalika taaraftu bi saydi mahmoud afandi ibn ali abajat ibn ali ibn jaat abajat la xam naa temps bi ñuy bind kii mu waa ji dañ ko miin gannaaw gi miin doomam nekkoon doomu Abadiat mi nekkoon na directeur banque centrale ci Soudan ci Khartoum weer wi passé ba Baba Lamine demee Khartoum téléphoné nañ ma passé ma ko moom ma wax ak moom waa jooju bàyyi yi mu wax yëpp poppat Mahmoud Aba Diar uduwu taifa al muhammadiya tijaaniya amoon na fa groupe bu tudd taifa al muhammadiya tijaaniya ci xartoom moom membre la ci boobu muy dajeeg Baye waxoon naa leen ne Aba Diar moomu la Baye jotoon pare ci ay diiwaanam te doon ko jàng ba bu sër ca rawda ba ba mu ko gisee ba mu jàpp ci moom nusxa yooyu mu amoon Baye moom la ko jox waa ji wan na ma ko ci benn at ci xartoom ah waaw wa hada sayidu min akabiri asxaabi cheikh kii may wax nii abajaat mi mu ne ci ñi gën a mag ci tijaan yi nekk Soudan la wa qad qaddamtuhu fi tariqati te jox naa ko lijaasa wa atxaftuhu bi julli asraariha te nag ba ma ko taqdiimee am na fu mu jaar ak moom daf ko taqdiim mu ne may naa ko itam li ëpp ci mbóot yi mbóoti tariqa bi ala ci indi yi nga xam ne man maa ko yore kama faaltu dalika ma saydi ali al mutaqaddim ali mi doon wax itam mani ko bi noonu laa def ak moom de jiital naa ko ba pare jox ko lu bëri yu ëpp ci mbóot yi wa fi rujuu'i wa fi rujuu'i la wax de min indihim rujuu'i ana jëm rujuu'i xam nga wa fi rujuu'in min indihim xam nga arab du ko bind kon bindkat bi bu rafet loxo bi te mën a jàng xam nga ñu ne léeg-léeg naaru góor faktalu wa fi rujuuci ba may ñibbi nag min indihim jógee ci ñooñu dégg bu baax ci invitation boobu raaytu inda albayt inda rukni alyamani shaban min ashraafi ali fas mu ne ba may ñibbi nag ba ñëw egsi ci kaaba bi ci ruknul yamani mooy bi nga xam ne boo ci départ ñëw xajarul aswad romb buntu kaaba gi wër moom mii la ngi noonu wallahi alors mu ne foofa laa dajee benn xale lu góor bu nekk shérif bu bokk ci waa Fass yaa ngi dégg wax na barab bi wax na waa ji wax na waxtu wi wa qultu lahu ma gis xale boobu rek shérif boobu rek man wa qultu lahu ma ne ko ci tëccët man laqita min as-salihina fi hadihi baldati muqaddasa yow bi nga ñëwee ci dëkk bu sell bi koo dajee ci saalihina yi xam nga laaj googu c'est pas innocent ñi mag ñi fi nekk ñëpp kii rek lay laaj koo dajee ci saalihiin yi bi nga ñëwee ci dëkk bu sell bi xaala wax waa xale ba tontu ko maanaam nit kooka ne ko laqiitu waliyan min ahlil kashfi léegi nga xam tax mu di ko laaj ma ne ko man daje naa fi bi ma ñëwee ak benn waliyu bu yàlla may kashfu wa axbarani annahu lamma ata al bayta waqaa lahu xaalun kabirun gaaba an hissihi mu ne ma moom bi mu fi ñëwee moom bi mu egsi Makka ba ci egsi ci kaaba gi yàlla daf ko kii xaal bu bu foor jàpp ko ba mu fàddu walis yëgam wala qiyal xadira alayhi salaam ca fàddu googu mu dajeeg xadir mi ñuy wax xadira Muusaa ma wa baada dalika raa rasula gannaaw bu mu gis xadir muy yéeg faf gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam wal xulafaa al arbaa mu ànd ak ñeenti xulafaa yi ababacrin omara ousmane ali dégg loolu bu wax mu ne wa qaala lahu kan yonent wax wax borom xaybatu gi nettali chab bi bàyyi di laaj yéen a ngi dégg mu ne waxaalo nag mu ne ko yaxujju fi hada al aami al gawsu borom martaba bi ñuy wax xawsu dana aj ci at mii wa yuxfaru li jamii ahli lmawqifi wa li walidihim te barkeem dina tax ñu baal ku taxaw arafaat ren ak seeni waajur yi ajur sax waa ji ci mashhad bi ne yonent bi dullani alayhi li azurahu wa tulba minu duaa way wax ma fu mu koy gisee ndax ma ziyaare ko ñaan ko mu ñaanal ma mu ne ko sa talqa wa qaala lahu qaala lahu sa talqaahu inda rukni lyamani yonent wax ko ci machab ne ko da nga dajeeg moom ci rukni lyamani fii bàyyi taxaw di wax ak waaj naan ko koo daje du ngeen kabar mi ngi ni suba suba يحج في هذا العام الغوص ويغفر لجميع أهل الموقف ولوالديهم قال قال له دلني عليه لأزوره وأطلب منه دعاء قال له ستلقاه عند الركن اليماني bàyyi ne qultu lahu ma wax kooku nag dajee kooku ma ne ko ataalamuhu ndax xam nga ko qaala laa mu ne ko déet xaw ma ko moom itam foo xaala moom ki bàyyi di laaj man laqiita yow nag koo dajee qultu laqiituka yow laa dajee ba léegi Chérif Naari Faas xamul ne mi ngi wax ak kiñ ko doon wax voilà wa dalika laylat al arbiaai li ashrin baqina min zilhijja ci guddik ñaar fukki fan ci weeru aj di guddik àllarba la loolu am ba mu jógee ci invitation gaa ñooñi ñëpp invité man la taqdim ñenn ña ci ñëw ba tollu rukul yamaan yi laa fa gis ak nit ne ko koo fi dajeet mu ne ko ankañ daje naa fekk wala lii woo xam ne am na kashfu nee na ma lii lii lii am na ba mu laajee yonante kooku fu ma ko gis mu ne ko ci ruknul yamaan yi ruknul yamaan yi fi la bàyyi daje moom naan ko koo daje ci saalihiin yi xanaa lii leer na kay te bàyyi mi ko doon laaj koo daje mooy ki nekkoon foofu ki nekk suusu néegu néegu banqoo boobu ci biir boo ko soxlaa bu jarul ngay bu yàkkamti xaar ko njël bu génnee julli fajal nga ànd ak moom amul garde amul sécurité da nga tardé xaar ko tusubaar tardé ko tusubaar xaar ko takku sax boo tardé julli xaar ma nga fa xëy na mu wasi mu mu mu wér na fa door a génn da nga tardé xaar ko tibis moom da nga fa yàgg ak moom ndax mooy wasi fa toog ñuy sadd way yonent yum ràbb moom ñu ne dem ca dogg di ñaanal ñëpp fi mu pare mu julli gee ñëw reer reer bu guddi ndax dafay bàyyi xel ñu yéex a ñëw te buy lekk moom ñëppay bokk dal ma laa bara moom du lekk li may lekk man moom xeeb na ko radiyallahu anhu mu ne wa fi yowmi al arbiaay jamaana mataana wa tufna tawaaf al wadaai raahilina ila judda bésu àllar boobu bi topp ci guddi gi àll ba googu mën nañu dajale suñuy bagage nag wër kaaba gi wër ak tàggoo ci la dal di laxas nag jëm jëdda mu ne wa razaqani llahu beneen may ñëw na de an tuftu waxdi bil bayti bayna duhri wal asri wa hada yabaahu l aqlu bés boobu ñuy waaj waaj jógee màkka nag tawaf naa pare mu ne bés boobu nag yàlla may ma loo xam ne xel nangu ko wër naa kaaba gi juróom-ñaar yoon kenn fekkuma ci man kenn la ñoom na mag mu ma ne loolu wër juróom ñaari yoon kenn fekk ko ci mu ne loolu xel sax daf koy bañ wa raxalna baada salaati al asri ila judda gannaaw takkusaan ñëw dem jidda wa aqamna fiha bi xukmi alwaxidi alqahaar ila yawmi sulasaay àllarba alxames ajuma samedi dimanche altine ba talaata ñi ngi judde mu ne atte bu yàlla mi not moo ko atte am na lu taxaw am na lu ñu gaaw wa fi tilka al iqamati yàgg googu mu yàgg jëdd nag ci laa doon wax lii bo boo kiyee nag boo ku mën a woy arab da daf lay neex mu ne bi juddata jismi wal fuaadu bi taybatin wa ahli wa ahbaabi bi xaryati kawlaxi على كولخ مني السلام فإنني أحيي رباها بالض- بالعبير المضمخ على فتية غر كرام أجلة سلام مشوق وسط تيماء فهم فتية باعوا النفوس لربنا فمن لي بمذكور وبذكر مصرخ فلم أر في شرق البلاد وغربها نظيرا لأحبابي عموما ولخخي آه كوكو أفعله أفعله am na jëdd kon une semaine boo xam ne bëggoon naa dem mais yàllaa ko fa téye mu ne nag mu naan su ma yaram a ngi jëdd mais su ma xola nga medinatu mun a war sama ñooñ ak samay soppi ña nga ci dëkk bi naan ko wax mu ne maa ngi nuyu Kaolack nuyoo boo xam ne dafa neexet mel ni maa ngi nuyoo di pompe gët mu ne maa ngi nuyu ay ndaw yoo xam ne ñu leer ñu tedd ñu màgg nuyób ku leen namm mel ni ku nekk ci digg àll digg àll xam nga mooy nit ñi xumb nañ ñoom ñoom ñoom xalaat dal na ma dal na ma bàyyi dafa yónni màkka ba atam falaa fal ma gàmmu fekk ngir la ma doon dox la ma doon dox moo yéex a sotti alors léegi day bii moom koor da dama fa ooree beneen yoon la ma bind bàyyi leetar fekk maa ngi ci ay xaal dafay am ah ma bind bàyyi leetar ne ko maa ngi oor makka kilomètre yu bëri yu dox suñu diggante waaye bàyyi maa ngi oor na ma daan ooree ci sa pekk maa ngi jéem a roy na nga daan def di jàng xadis bu xare tey jii maa ngi ci xadis numéro nangam ma ne ko waaye nag maa ngi muñ muñ gu rafet ni ma la nam ndax li tax méttiwut fu ma gis rek ku mag wala ku jekk wala ku baax rek mel ni gis naa la ma ne ko waaye nag maa ngi sodd la waaj a waxoon benn woykat ka an lam yakun bayna alxajuuni ila safa anisun walam yasmar bi makkata saamiru mi ngi mel diggante safa ak marwa kenn musu fee ne ana rëj rëj ji maanaam gisuma kenn mi ngi mel kenn musu ngomlaan ci màkka bind ko nag benn bés bu yàgg la moo ñëwee bés may ma ne bàyyi ma ne mos na la fi benn lettre boo xam ne daanaka xam naa ne waxi ku kii la ma ne ah xanaa mooy bi nga noonu wax an lam yakun bayna al xajooni ila safa samirun nekk daf ko daf ko archivé ci wax ji la bokk bàyyi nag ne mi ngi nuyu fittiyatun ay ndaw yoo xam ne baawoo jaay nañu annufuusa bakkan ya li rabbina jaay nañ ko yàlla taal bi yam fa bawoon fa man lii bi maskurin wa bi dikri musar eh waay waay xubay gisee koo xam ne ma ngay sikkar te moom la ñuy sikkar te ma ngay jol ci ko ma ngay tudd ña ngi koy tudd ñooñu la fa fa waxoon ne tajid fit fityatan sakra bi xubbi ilahihim fa kullu fatan yurfa lada zikri azora ba muy ba muy décri ba muy décri médina di wax ne boo boo buggee xam mandargay fayda bi demal médina da nga gis xale yoo xam ne ñu ngay sikkar bu kii ne nii rek kii ne kii la li koy baaru azuwara mooy ni ñuy def niy jàng waaw bàyyi ne nag indi seede bi fa lam ara fi charqi albiladi wa garbiha nadiran li ahbaabi penko xarfo yi ma dem gis ma fa ñu niru suma taalu bi umuman cig dëkk matale wala xi gëstu ba xam gëstu li ma la wax yàlla na yàlla saxal mu ne wax na fa itam ne xayaati bi sangaalin wa taybatu jannati wa juddatu min duni ljinaani siraatu fa in massa abdan an yuqiima bi juddatin fa sabran fa haadaka almuqaamu ribaatu ñaari bayt yi jàng naa ko ci kanam ñoom kaamil sharif ak ay arab yu xóot ci jëdd baa ngi toog waaj na waaj na ma ku kox li ma ne ko kii toog mu ne ma ajib ma ne ko bay ayu ajab mun bi doy na waar ma ne ko lu ci doy waar maanaam dafa rafet lool bu ne sama dund bi moom maa ngi dund ci Sénégal waaye nag sama aljanna moom mooy madinatu munawwara aljanna nag foog nga jaar ci siraat mu ne jëdd nag mooy suñu siraat ñu ngi jëm aljanna ma toog mu toog jëdd jëdd neexul boobu amul goudron amul dara amul hôtel tout mu ne nag fa in massa abdan bu yàlla nattoo jaar moom nattu an yuqiima bi jiddati muy toog jidd sabran muñ fa haadaka al muqaamu sax googa ribaatu mi ngi mel ni kuuf dañ ci am yoon boobu judd neexu léegi nag macha allah surtout gannaaw buum pétrole bi hôtel yaa ngay màgg rek mu ne waqad jiitu atlubu baaxiratan tatawajjahu ila biladi sham uridu ziyarat al quds sharif mu ne ci jot loo nag muy ut bato bu jëm sham ndax dafa bëggoon a dem baytul maqdis doorañ bi xool itti ji atullah fa xtaara li nuzula bi panjabi maghrib al aqsa mu ne mu def li tànnal ko dem u dem baytul maqdis xaar ba am bato wala continuer ñi bi mu ne yàlla tànnal ko ne duggal ci bato bi lay yóbbu tànja camaro mu ne wa qataatu awraaq al baaxirati zarqa bi xaal tuddoon na ko mu ne batu ba ko indi woon jëdda jëlee ko tànja mu ne mu dali cee dog biyeef wa hiya lati ballagat nii hadihi diyaara walhamdulillahi awalan wa axiran mu ne mooy batu bi ma indi woon fii kon nag moo ma indi woon mi mooy daloo maa ngi sant yàlla ca départ maa ngi koy sant itam ci fin bi wa rakibna min jidda sa nga mi ngi kii mi ngi rëppatal wa rakibna min jidda yowma sulasaa'i dahwatan li arbain baqina min dil hijja ma ne ñu ñu daal di gaal gi ci yoor yooru bésu talaata ba fekk ñeenti fan rek a des ci weeru aj wi xaasidina tànjata lil iyaa bi bato bi tànjale jëm afu mu di jaar lil iyaa bi ngir dellu ay lil awdati xaailiina bi mu ñuy wax na yoon su daan wax ayibuuna taayibuuna li rabbina xaamiduuna sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba waxdahu am na ñu ciy yokk sax wa nasara jundahu mu ne ma wax li yoon su daan wax bu tukkee ba ñibbisi te ku ne ci ñun boo ko mokkalee war nga ko wax boo tukkee bay ñibbisi wala sax boo génnee bay duggaat sa néeg ñi ngi dellu ñi ngi tuub jëm ci suñu borom ñi ngi koy gërëm yàlla lam digle woon def na ko yàlla dimbale na jaamam yàlla dàq na laxzaab yëpp moom kenn xam nga laxzaab nañ ñëwee woon Medina pour mokkal ko ñu gas xandax dàq leen yàlla rek a ko mën boo boo ñibbee boo tukkee bay ñibbisi wala boo génnee bay dugaat wax ko ndànk wala ci ko wàññul dara andi ci laa ne wa yowma alxamiisi dahwatan wasal na tuur tuur benn benn région la waaye fa la tuuru Sinaa bi alquran di wax itam fa Moussa doon déyanteeg borom bi fa la nekk waa tuur mën nañu egg sa tuur xam nga talaata arba alxames soriwul noonu ca yoor yoor fastaqbalana tabibu wa saida wa daxala fi sabinati médecins yi foofu dañuy contrôler ndax xujaa yi indi nañ benn contamination wala dem ñun sax bañ fa jaaree aji ba ñu wàññeeku ba ñëwee noonu la ñu def nañ defoon bàyyi diggante bi diggante bi ñaar fukki at ak nangam dox na fa. ba fa ba fa bàyyi jaay waaye bañ fa jaay ma ay bële ñun itam dañu kii ñu dem ñu jox ñu ay douche yoo xam ne ci géej gi lañ ko branché ndoxu xorom ngay sangoo. jox ñu ay ay ay ay kii. ñu ko robe de de de bain yu yu yu am. ñu kii foofu après la ñu door ñoo bàyyi ñu dugg mi ñu dugg Misra waaw bàyyi ma ñu ñëw yéeg ba ba baada saatin istaqbalatna sanabiku wa naqalatna jamian ila al quarantine gaa yi ñëw jël ñu ci gaal yu ndaw après ñu dem fi ñu tuddee fi ñu tuddee quarante quarantine quarantine waaw fii maanaam ñu dugal ñu ci xammaam bi comme na ma waxee walbasuna baadal xusi jalaabiba muaddalil xujjaaj wa ajlisuna nax saatan fi daarin nadifatin fusat fi karaas fiha karaasi muaddali daalik ku ne am nga foto ko baxaru malabisana bi buxurin indahum mu ne am na cuuraay lu ñu amee ñu cuuraay ñu ko maanaam da ñu pompé leen quoi désinfecté leen wa sarraxuna wa rajana ila safinati waaye ñun comme ñun demuñ misra dañ dellu ci suñ bato wa saarat bina wa baada tuluci chamsi wasalna Suisse wa qultu fii Tour waaw ba ñuy bi jant bi so rek maanaam canal Suisse Suisse bopp mu ne foofu laa doon waxee ne araani bi tuural yow ma sirtu muqima afuuzu bi sirrin jaa fihi kalima maa ngi nii ci tuuru Sinaa tey man ci jamono jii maa ngi wàcc tuur afuuzu mbir moom dana ma texe am bi sirrin ci mbóot moo xam ne jaa mas naa dikkal fii kaliman Moussa mbóota Moussa am naa ko fi bi baxri suwisin qad amur wa innani bi porte saidin qad ashumu nasima maa ngi romb canal Suisse porte said maa ngi foon ngelawu ndemeex walakinani mahma ujawizu tanjatan ara manzara alhaadi alibadi faxima mais nag su ma xasee romb tànja rek gisatuma dara lu may kii jubal jaam yi te am daraja lool moom rek laay gis fu ma xool mooy sidna cheikh fa dalika chamsun wa rijalu kawakibun kooku may junj mooy jant bi góor yàlla yi ci des mu ne ay bidiw lañ fa kayfa tara inda shuruqi nujum su jant gis tey biddiw biddiw yaa ngi fi mais doo lay gis fa dalika ruuxul kawni sirru muhammadin kooku may junj seydna cheikh mooy roxoo kawn bi mooy mbóotam muhammad alayhi salatu ma axaara xakima mu julli ci yonent bi sulasa assaabia fi yowmi sulasa السابع من المحرم رأينا جبال طرابلس بمملكة إيطاليا وليلة الأربعاء حاذينا بلدة مرسيليا عاصمة فرنسا عاصمة من عواصم فرنسا وضحوة الأربعاء حاذينا بلاد تونس وز- و- وزرت هنالك سيد العلام العارف الرباني سيدي أبي العباس أبا العباس إبراهيم بن عبد القادر الرياحي ومن معه من التجانيين muy wax nag ñuy ramassé romb nañ foo xam ne tolloon nañoo booba Italie xam nga ñoo notoon Libye moo tax mu ne mamlakatu Italia ñoo guddi guddi àllarba ñu tolloog Marseille Marseille moo benn nekk capitale française la maanaam une des capitales Euh, ca yooyu àllarba mu ne ñu tolloog réewu Tunis mu ne nag bañ tolloog Tunis rek ma teewlu ziyaare Seyd Ibrahim Rayaay Rayaahi Arif Rabbani boobu ak ña fa nekk ñëpp ci Tunis ci ay tijaan wa yowma alxamis mararna bi biladi Hispania lati fiha alxarbu alaana bayna mu ne ñu romb Espagne bésu alxamis bi nga xam ne ci guerre lañ nekk booba wa fi wa fi sahari laylat aljumaati mararna bi jabali taariq ca njël ñu romb jabal taariq wa inda shuruqi wasalna ila tanja ba jant bay penk rek ñu egg tanja wa nazalna in an ilbaxirati dahwatan ca yooru ñu may ñu wàcc wa sirtu uwaddiu maa rufaqaai lxujjaaj wa kulluhum yaqul la budda an tadhaba ila baladina ahlu marakish wa ahlu ribat wa gayruhum mu ne may tàggoog nag marocain yi nga xam ne gaal gee ñu boole woon man maa ngi wàcc wuti feneen foo jëm ñoom ñi ngi wàcc di ñibbi mu ne ñëpp nag naan mottee nga ñëw ci ñun waxuñ ñëw visité yow fi yaa nga war a dëkk ci ñun waaw foofu nag mu ne wa fi dalika aqul yaqulu li rukbaanu kun fi diyaarina fa inna la awla an tuqima bi daarina fa qultu lahum axlastum alwudda bay innama li faasa lahibun la yuqaasu bi naarina mu ne gars yi ñu- gawar yëpp ak ma naan waay waay waay waay nekkal ci suñ kër yi waay ñun ñoo gën a yàlla ci nga dëkk suñ kër yow waroon na Sénégal fii nga war a nekk mu ne fa qultu lahum ma ne leen axlastumul wudd sellal ngeen cofeel ngeen ma sol innama mbaaye nag li faasa lahibun faas dafa am jalam muy vérvéri boo xam ne laa yuqaasu bi naari naa kenn du ko xees suñu safara nag am naa lu ma soxlaa loolu si yéen de وخلصنا ديوان حيث نظروا إلى وصية الدولة الفرنساوية التي أتحفونا بها سريعا من غير تكليف بأدنى شيء هم أمونا ريكومانداسيون بوجوغي تي غوفرنور جنرال تي داكار douane yi xoo xooluñu sax même consul ba sax mu ne invité na leen ca samedi ja dal di tamponné seen passeport yi Euh, li ñu teree dem Fass ca saasa sax mooy dañu wax ne boo romboo garde yi ci yoon wi te amoo tampon yooyu dañ lay sonal moo taxoon ñu fanaan pour ñu tamponné leen ونزل و- وطبعوا له. وليلة الأحد ركبنا إلى فاس ونزلنا بها صبيحة الأحد guddi dimanche bi continuer dem Fass wa aqamna fi zawiyati cheikh ba'da nuzulina fi manzili daari sharif fi manzilina daari sharif seydi Haddu al-mutaqaddim dhikruhu suñ dalalkat ba ñu waxoon Haddu ba mbokk ma nekkoon Kaolack nekk commerçant foofu lañ dalaat wa ba'da al-asri sirna ila madinati Sufru li mulaqati seydi Ahmad ibn Saih wa nazalna indahu wa akramana wa athafani bi 'asa al-khatm at-tijani allati la tuwajjahu li shay'in bi himmati cheikh radiyallahu anhu illa man aada bi dhikrillahi ta'ala ñu dem sufru soriwul Fass ñun dem nañ fa ak Hajj Abdoulaye dem nañ fa ak Baye waaw ñu dem seeti waa jooju mu ne kooku nag teral na ko ganale na ko mais may na ko itam kaan yetu Cheikh Ahmad Tidiane yi nga xam ne loo ko jubale ci himmati Cheikh rek loola ommatu ci yombal ak yàlla ci la bindoon Baye Bushraaya xustu lazi qad azza madrakuhu asal imaam amlikuhu bind na ci ay woy yu bëri waa li ma bëggoon am naa ko ndax xiyatu seen cheikh bi jot naa ci mu ne wa wa wa aataana mashahid al xalifa ali harazim mashahid bu ali harazim mashahid lañ koy wax mu ne waa jox na ko ci nusxa wa kannaas seydi ahmad abdoulawi ahmad abdoulawi sëriñu sukayri kannaasam ba waa jox na ko wa waadani bi nusxatin min jaamici al imam muhammad ibni mishri nee na mu jiit koy tamit dinaa la utal plus tard téere bi ñuy wax jaamiu libni mishri bu cheikh ahmad tijaani jasawullahu ahsana jasaay jaamiul mishri ci suma yoonu Fass avant dernier ba itam am na ku ma ko indi yóbbu ma ba këram may ma ko ونزلنا بالمحطة لقصد ركوب الدار البيضاء ليلة الاثنين وركبنا في سفينة البر من فاس بعد صلاة العشاء وعند طلوع الشمس نزلنا بالدار البيضاء عند المقدم سيدي محمد الحسن بن الشمس المقدم بالتيجان بلا البيضة وما إلى صاحب الباخرة وقطعنا أوراق الركوب إلى ذكاء وأعلمون أن الباخرة المسماة بالكتبية بالكتيبة كتبية تخرج يوم الثلاثاء العاشر من المحرم وبتنا ليلة عاشوراء عند العلامة العارف الرباني سيدي أحمد بن الحاج عياشي سكريت mu wax dem nañ Casa dog nañ suñu billet après nag ñu profité nag dem fanaani guddik xam-xarit ñu dem ci borom xam-xam bu bari ba lool al aarifu rabbani sayid ahmad ibn haaj al ayashi sukari mu ne rakib naa ilayhi min daar bayda baad saati asri takkusaan lañ fa jël oto ak wala saxaar dem sataat sataat la nekkoon si fi mu ne boo demee Casablanca bugg a dem Marrakech sataat presque léegi sax mi ngi bokk ci ci région Casa mu ne baada saatin benn waxtu rek lañu wasalna ilayha fi sayara wa fariha bina wa akramana gaayatan mu ne sukkari bég lool ci ñun teral ñu lool wa huwa alladi qaala hada luxsa fi naxwi mu ne moo defoon luxs bii zahiri de naxu la bàyyi daf ne cëpp rek fekk xamante nañ ci bindante lu yàgg mu ne bàyyi ma jam bii maa ko bindoon cax bii kafeeg moom ne ko soo ko tontuwul doo fi naan ataaya dam na yoo xam ne ba ñu ko xoon nag duñ naan ataaya ndax sukkeeriñ moo ne ayu fiilin ata bila failin xaqan wa qad taalama baxastu alayhi qalla ma yasuru alladi maarasa naxwa alayhi wa lam yajid alayhi moo wax leen ma yéen njàngkat yi faayil ju amul faayil daan la te man gëstu naa ko lu yàgg te kat ku mën naxu rek ñaare boo ko gisee rek fekk ko fi faayil ju amul faayil mel nga ne xaalaat waxuñ ki wax darabat waxuñ ki dóor bàyyi daal di jël kayit gi rek golbit na ko mu ne fa qultu mujiban lahu taalama tamma bi suali jawaabun min labibin jiba sabiru ilay qallama shadda li labibi rahilun lam yanal malay mu ne ko am kay tontu gi ki ko laaj moo ko indi ndaxte taalama xam nga am na taala qallama am na qall mel ni feelu maadi te amul faay yow li ngay laaj moom nga jëfandikoo xam dañ ko gisam déet wax nga ko baadama qultu lahu qitaatan fa ajabani fekk avant loolu wax naa ko benn qitaa ci chaara mu tontu ma ci même baxru ak wasnu ak xaafiya dana ñëw wa sa taati qitaataani fi ma yaati min al ashaari insha allahu yem foofu salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin parce que rek affaire bi am na am dara su ma ko xamee tontu la di jàng ci kàggu maamalaaji kay di nga xam ne sharaaw Buxaari am na yooyu yëpp waaw am na yoo xam ne daf koy gis su fekkee ni waaw bu fekkee xam xam nga téere yi maanaam yu bëri yaa ngi koy fekk ci téere yi da nga xam ab téere te gisagoo ko da nga dem gis téere waaye yii yëpp foofu foofu la ko jëlee daal si mool amoon na Sénégal xam nga maam Alaaji ma wax la tuuti ci ci ci politique culturelle de itteem dafa yeggoon ci ci Dagana la am benn waaye bu mu amal accord ne ko bépp téere bu egsi Mauritanie te amuñ ko ñun bu fekkee ne lu ñuy jaay la laajal ma yónnee la njëg nga jëndal yónnee ma su fekkee nitu ko am te nangu koo jaay fayal ko ko sotti ma yónnee la njëkk nga indi ko loolu loolu maanaam liggéey nañ ci lu yàgg amoon bindkat boo xam ne daanaka moo dàq mi machine waaw kooku bind la ma laaj yu bëri bëri bëri bëri léegi sax gis nañ lettre yu ko waaj wax na yaa ngi dese nangam nangam ba fayaguñ ko woon yi demee noonu surtout mouvement kay mais nag dem nag gis téere yi nag jënd ko jënd yeneen yoo xam ne amuñ ko bàyyi dafa continuer di jënd téere ba voyage mujj ci Maroc jënd na fa téere boo xam ne ba mu ko jëndee yóbbalu bi dafa jeex an qaawul maghrib bi doon wax ci xatmul wilaaya muhammadiya sharab ba ci bindam la ko waaye ba mu ko bindee ba mu ko jëndee dafa cher ba nga xam ne xam nga dañuy profité rek ñu kii te at moomu bàyyi dafa demoon pour dem dërs pour joxe dërs durus xasaniya daaw ja dafa ñëwoon war a joxe dërs xasan xaw a feebar at moom mu ñëw war a joxe des moom mu xaw a feebar bi ñu déparé Rabat ñëw Casa war a fanaan ci hôtel Daal Bayda bi nekk léegi Hyatt Regency boobu non alors nag bàyyi na ma ana téere bi njëndoon ma indi fekk boobu ci géej yëpp def nañ ko mu ne ma kër jàngal muqaddima bi ma jàng mu cuqat cuqat jàng fi jàng fi jàng fi ba ah baax na baax na may toog ba xam lu muy wax ah kii kat saraam bi baax na kat waaye moom it jar naa sara ma ma xam ne jox la asalaamaaleykum wa rahmatulah.
ñaar laaj yu mujj. benn bi si yow la. Baye radiyallahu anhu. yàlla def ko maye mu gis ko si minute mu nawar si jumaa yi ngeen teel moom sala.
ci kenn.
si jumaa si biir jumaa yi. Baye ngi toog mbooloo bi ñu ngi si ci xàmmee baabu lañ laa si xàmmee. ay aws la. Baye di wax baabu lañ di ko teg si aws la. di teg la aws la. bu ñu toogee ne mu yàgg ab diir mu jóg dugg si xabar yu tam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab diir mu ñëw toog fi mu toogoon ne dugg naa si yonent bi lu am na ab diir ñu génn maanaam moom ñuy dox si àll bu verte ni mu teg ma loxo mu tedd ba radiyallahu anhu ñu dox tuuti rek ma gis ab liir jël ko bàyyi na ma lu tax nga jël ko ma ne ko dama dama ñëwante comme nit comme nit la ma ne ma naa ko jël ñoo ci ci àll bi nii.
waaw bàyyi na ma teg ko du nit jinne la si noonu rek yàlla def ñu ñu ñu génne ñu génne ñu carte Sénégal na pas carte bi si carte Sénégal bi nga de écran yu si àll bi ma jël benn bant di ko wan bàyyi ma ne ko fii mooy ngij waaw ma mun naa ngij kay gënoon ma koo xam wallaay mun naa ngij gënoon ma koo xam confirmation.
mën a ko gis nga xew yi fi yàlla def yëpp si yow la ko jaarale mu ñëw si alaj moor mu ne ma man alaj moor du ñaar kenn lañ radiyallahu anhu d'accord ah d'accord.
daal moom gis naa ah boobu moom moom moom gis la li ma la wax yëpp dëgg la kooku moo confirmé la ko ci benn gàmmu mu dem Màkka ba ñëw ba gàmmu ko jot ci xasidaam bi mu def ci gàmmu gi bi tolloog gàmmu gi ndax gàmmu gi tax doon moom day tagg yonent rek mu mu wax ci ne wa fil xajji yowma al iidi bil xayfi min minan jihaaran ataani al mustafa bil manaaihim mu ne ca aj gi ca minan ca xayfu bi noonu ci lu dul nelaw yonent indil na ma may yi ba ma jàngee ba ma ñu ñëw ci buntu kër gi taxaw noonu ñoom cheikhaan yi ak monsieur ay kilifa naar taxaw mu ne ma jàngal leen xasida bi bàyyi ngi taxaw ci buntu kër gi buntu kër gi ci mbaar mi xawal tiim leen noonu tuuti ma liir ko ba mu pare bàyyi ne duuma waykat da waaye li ma wax yëpp dëgg la ma ne ko kon nag bàyyi ñaar am na kon waykat nga li nga wax
yow sa def def na tuuti bàyyi na ma jàng alxuraan mën na ko jàng naa alxuraan mën ma foron jàng mën ko si tàll bi ñu wax alaj karo mën nga baax na baax na baax si noonu man ci mën a ko man bàyyi danaay faral di la addiyaale yaasin parce que yaasin dama ko bëgg sama xol dana ma koy faral di la ko addiyaale mën nga baax na jox ma ñetti salaatu fàtte
jox ma waaw bàyyi jox ma mu mu jox ma ñetti salaatu fàtte
mu ne di nga nga di ko jàng wala mu jàngal la ko mu ne ma jox naa la ñetti salaatu fàtte ah bàkkañ waaw go maanaam mën na remplacer Yacine ah bu Yacine xatee ngeen ñàkk temps jàngal ñetti saa du fàtte macha allah benn bi benn benn si yow la waaw
daaw yàlla dafa def ma gis ñu ñu ñu si si gis
rabbana alayka tawakkal ya kasira sifaati ya rasul nasaluka salaamati wa baraka ilayka nasaluka salaamata wa شكنا صدمة قهرمانك الباري اللهم يقول الإنسان
برهام باء وراء ألف ثم